lii di ndoxum siti lii di hémorroïde ak wàllu faiblesse sexuelle ak góor yi nga xam ne seen néegu sëy léegi def dafa taxaw am na ñoo xam ne léegi mënatuñoo satisfaire seen i soxna am na ñoo xam ne léegi amatuñu buñ daan sëy ñaari yoon ba ñetti yoon mënatuñu ko léegi benn yoon la ñuy sëy par semaine ñoom ñëpp incha allah man damay dimbalante ak ñoom jàppalante ak ñoom ba ñu delluwaat ci seen kattan liñ amoon. te nag yàlla may nañu taw tawféex jàngoro yi xam nañ leen ku ci am jabet xam nañ fu ñu lay aw pour fajal sa tale ku ci am siti xam nañ fan lañ lay aw pour fajal sa tële ku ci am tension mën nañ xam xam nañ fu ñu lay aw pour mën la fajal sa côté tële boobu noonu am nañu bari nag ñoo xam ne dañuy faj wàllu tële te yooyu jàngoro xamuñu ko te yàlla may nañu taw feex ñun loolu yëpp maîtriser nañ ko moo tax ñu mën a dimbale daami yàlla yi ci wàllu li nga xam ne mooy yi nga xam ne moom moo am ci réew mi moo xam nga nekk ci réew mi moo xam nga nekk ci bitim réew waaye foo ci mënti nekk incha allah danañ la fajal tële ba nga wér ci jàmm